bokk yi man Abdou Lahad Ka maa engagement bu bees ak volonté bu rëy rëy woo képp ko xam ne mën na cee ànd man muy góor muy jigéen muy mat muy ndaw muy xarit muy mbokk muy koo mën a doon ci jàppale président de la république ci parrainage bi député ko fi ànd ak moom jëm 2019 ngir moo gagné waat réew mi premier tour. loolu nag su ma ko defee ku nekk war naa ñu bari xam nañ Abdou Lahad Ka yaakaar naa ne bariw ab 4-4 wala as xaalis taxu maa jóg wala ma dem wut juróom million dagg ci téeméeri junni def ci sama poos joxe téeméeri junni Ah. dama jël dama jël sama sama temps fas ne ko jël ak sama alal ak sama ak sama sama samay mooy yëpp ànd ak ñi nga xam ne nangu nañoo ànd ak man ci Touba ak Mbacké ak département bi yëpp ngir ñu jàppale président de la république ci présidence bi mais continuer ko ba élire ko 2019 ah. loolu nag li ko waral wolof daf ne dégg naa Abdou Mbacke ndax wax ko léegi ne ku xëy kuy da nga wax ne fi nga jëm loolu li tax yàlla daf ma nattoo sama kilifa sama sëriñ yëkkati dëkk bi di Touba Mbacke jox ma ko jiital ma ci conseil municipal bi ma nekk maire de Touba te ma wóor ma ne bu ma wóoroon ne sama capital bi ma yor mën naa defar Touba du ma politique damay dem def ko ci defar dëkk bi bu ma wóoroon ne budget Touba mën naa defar Touba damay liggéey ni ma li ma ñëpp xamee kër am liggéey am xaalis defeere ko Touba mais malheureusement ñaar yooyu yëpp munul lenn lu ci nekk man nga ci man lim am man nga ko def ci Touba te kenn do xam fan la nekk muy réer ak feeñ lan moo mën a defar Touba kan moo mën a defar Touba état rek moo mën a defar Touba état président de la république rek moo mën a defar Touba defar boo xam ne askan wi dañuy sant yéen ne ñoom joge nañ ci lii ñu ngi dund nii loolu nag su amee ak wallante bi nga xam ne président de la république am na ko ci dëkk bi lim fit jot a def ak lim xalaat ne dana ko fi def li mu li ci kanam mu mu préparé ko pour def ko ci loolu man su fekkee ne dañ ma yëkkati teg ma ci boppu dëkk bi war naa taxaw jàppale président de la république jàpp Touba ak Mbacké département bi yëpp ñu nekk actionnaire actionnaire ci pooru président de la république ah. pour mu mën leen a récompenser ah. ci li nga xam ne moom la dëkk bi soxla te kenn du ko jàmm parce que bu ñu ci àndul jàppale ko fal ko ba mu toog ci réew mi deuxième mandat ma wax dëgg kat nit buy sonn te dimbale woo ko ci dara bu toogee bu ko neexee mën na la bañ a te doo ko xarab loola nag dama bëgg département Mbacké participer contribuer actionnaire ci nekk ay actionnaire principal ci élu président de la république 2019 ngir que mu mën ñoo récompenser lu ñu développer département bi ci ci économique ci infrastructure yëpp yi ñu soxla loolu moo tax ñu jël suñuy engagement ànd ko ak l'ensemble des maires de département de Mbacké tey ñëpp fi la yendu ak mbooleem responsable politique yi fi nekk ci ku nangu te ñëw ñu ànd liggéey ak mbooleem groupement de femmes yi fi nekk ak mbooleem association des jeunes yi fi nekk ak mbooleem mouvement de soutien yi fi nekk ak notable yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ak chef du village yi ak conseil municipal yi nekk ci seize communes yi ñu ànd ñun ñëpp dugg ci gox yi ak gox goxaat yi génne nit ñi sensibiliser leen ngir ñu mën a def ci parrainage bi lu wér a wér bu élection yi ñëwee ñu mën a wote massivement pour président de la république am ndam ci département Mbacké loolu na pour ñu am ko il faut ñu ànd man déranger wu ma kenn parce que politique da ngay wax kii boo bu ne bu jàllee député man du ma jàll député wala bu jàllee conseil économique social man du ma jàll wala bu jàllee leneen doo jàll mais Abdou Lahad ja soxlawul dara ab liggéeykat la boo xam ne dañ koo jox ndigal moo war a taxawu askan wi li mu bëgg lépp mooy jàppale président président jàppale askan wi ci barki démb barki démb toog nañ ak ministère des infrastructures toog ak directeur Ageroute toog ak directeur ONAS toog ak directeur ASER ngir nan la ñuy def ba développer commune de Touba président joxe ne ñaar fukki godoron ci biir Touba vingt godoron vingt yi ci gën a bi bi te nga xam ne un an ngi nii ñu ngi koy wax ku nekk xam na ne madd na Samb tali bu farata la ku nekk xam na ne Touba Mbacké Touba Fall tali bu farata la na ne Daaru Karim Daaru Musi yoon wu farata la ku nekk xam na ne Tindodi yoon wu farata la ku nekk xam na ne Daaru Salaam Touba yoon wu farata la waaye ku nekk xam na ne ke Touba Kéré Ndaw Kéré Mbay yoon wu farata la loolu ak torchon yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi yépp ñaar fukki torchon la ak tayif yoonu tayif bi Sadio tayif bi nga xam ne yaakaar naa ne loolu mooy torchon yi nga xam ne war nañu ko liggéey waaye mu am torchon yu bari ci biir Touba muy 30 bi nga xam ne tour lay def dafay tàmbalee ci ci banque bi nga xam ne mooy CBAO ci xayra def tour ba dellusiwaat foofu nekk deuxième corniche boo xam ne dana enclavé li nga xam ne mooy xat-xat yi ci jumaa ji waaye ci assainissement bi mu jël OIG ci lépp li nga xam ne mooy l'entour jumaa ji ci corniche bi def ko OIG ba nga xam ne manque bi ñuy manque manqal ma sama wanewekaay abal ma oto dana jeex loolu aussi jël na ko en compte te di ko defar lu bu loolu yëpp jàllee nag mu jël ay infrastructure ay camp gendarmerie ak camp sapeur pompier yu bari ak daar daara moderne yi bëgg ko cee def waaye aussi ba tey mu des mbër mi nga xam ne amagul ci Afrique amagul ci MOA bi muy autoroute Ila Touba. bi nga xam ne président de la république moo ko xalaat bi ni réew mi yaatu yaatu mu ne Ila Touba la jëm def màggale ko Serigne Touba jàppale ko réew mi def muy développement économique ak sociale boo xam ne ci dëkk bi la jëm boobu vraiment tem ne dana pare. fii ak 40 jours war na pare bëgg na bu taalibey Sëñ Tuubaa di màggal si danañu dëggu jaar ci ila ila Touba bi maanaam ñëw màggal si Touba ñibbi a jàmm. waa mbokk yi dama ne loolu nag loolu nag képp ku ko man képp ku ko man te yéene la ko te di ko def te yow mënaloo sa bopp askan wi loo leen dara lu du loo am jox leen nit taxaw ne la danaa ci jàpp loolu danaa ko defal xalif général de Mouride. danaa ko defalal njaboot ak sëñ Touba Abdou Lahad loolu rek moo tax mu taxaw tem ci jàppale président de la république maanaam ngir mu am deuxième mandat ba mën a loolu.